alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah si naa leen gannaaw bu ñu nuyoo nga nuyu internet yi nga xam ñu ngi seetaan euh, fond de Médina Baye bi nga xam ne yow yaa chargé de communication à euh, mi parcours lan la fond bi dafa gum gis nañ ne depuis bi nga xam ne Covid bi commencé na ba léegi am na activité yoo xam ne def ngeen ko tey ngeen ñëw di joxe ay masques si jumaa ji boo ñu doon defal bilan lan nga euh, ñuy wa rahmatulah di gërëm Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahim di nuyu roxam nga xam ne xewal yu baax yi ak yu ndaw yu ñuy yëmantu ci mbaax lépp ci moom rek lañ ko royee ndax moom dundam yëpp da ko def ci xenc yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam roy ko te yoon bi sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla da ko yónni mu nekk di yërmaane ñeel mboolem bi nekk yàlla yi waaye itam roy ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ne alxalqu iyaalullahi ahabbuhum ilallahi tabaraka wa taala anfaahum li iyaalihi min dee fii ñoo ñëbooti yàlla ci kaw suuf ki yàlla gën a bëgg nag mooy ku ëpp njëriñ ci ndeefu yàlla yi loolu moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu dundam yëpp ñu doon fexe eh, lu xettali doomi aadama comme ni ñu ko waxee yàlla sante ko yàlla yàlla da ko amal pour mu xettali doomi aadama jëm damm-damm yi moo tax dundam yëpp eh, fexe na taxawal ay structure yoo xam ne buñ ko gémmee jëmmal comme nu ñu ko rëddee rek dëgg-dëgg wax ma la ay taalibe waaye ak bi bu day nekk ci jàmm ansaaru diin moom koy taxawal du ma ñu naan ko coppe tey boobu Mawlana Cheikh bi taxawal boobu Sénégal amaguñ indépendance parce que coopération loi bi mi ngi date de 10 septembre 1947 France ñoo ko ñu ko taxawal ko taxawal rek bàyyi taxawal taxawal ko ngir jëriñ doomi aadama wax taalibe yi lépp ñu ma gis ma di ko béy rek ngeen ko def ngir roy ma ci kon kooku yàgg na taxawal pour xeetali doomi aadama ba mu paree créé Ansaaru Diin dem ba ci kanam mu xam ne laaj na levier boo xam ne pour financer ay projet xadara bi la 1973 Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu créé lu ñu wax sundu li tamwiril mashaari fonds pour la réalisation des projets de Medina Baye kon fonds Medina Baye bu ñu koy wax Baye moo ko créé 73 la ba léegi moo ko créé defoon ci ay kër nag ñàkkul ne yéen jotoon ngeen koo gis ba léegi nag ñu dem ba de 17 février euh, xalifa bi jox mandat porte-parole Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Aliou mu dëkkalaat fond boobu noonu ñu koy oo taalibe yi waxtu nekk taalibe yu bëri ñu ci góorgóorlu waaye des na nañ gën a yokk itte ndax li war a baaxal Medina li war a taxawal tabax Medina li war a baaxal suñu activité yëpp kenn duñu ko defal lu may ñun njabooti Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu njabootam gi mooy képp koo xam ne yaa ngi askan ci moom ci ruux ak ki nga xam ne yàlla may na ñaari chance yëpp mu jur la nga nekk taalibeem te dara du jëriñ nag lu may buntak taalibe wax na ko taawam Mawlana Cheikh Alhaji Abdoulaye ne ko fa kun muridan la wala ji fa innana la nurafu bi mujarradi intisaabi bal bil biddi wa sidqi wal iktisaabi da mm. nga nekk taalibe te bañ a nekk doom kese maa ngi lay xamal la yow Cheikh El Hadj Abdoulaye lu ma la fonk-fonk li ne ci man lu ko fiy jëlee mooy dëgg ak faagu ak mbëggeel loolu mu ngi jàngal yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon doomam yaa Fatimatu bintu Muhammad laa ughni anki min allahi shay'an yonent bi dafa wax Fatimatu doomam te nee na moom la gënoon a bëgg ci mbooleem lu yàlla bind ne ko du ma la garanti sa diggante ak sa borom dara li ngay li lay jëriñ ëllëg yomal qiyaama ci yaa ngi koy liggéeyal sa bopp moo tax njabooti Baay yëpp ànd taxawal pour taxawal fond bi fond bi nag li ko taxoon a jug bëri na lii dat ñu ci mi parcours bokkutoon ci suñu projet waaye ba nga xamante ni mbas bi daanu sone ci àddina bi xam ne réalité yi am na lu mu laaj te dafay impacté ci mboolem luy activité ci doomi aadama moom bi toog xalaat ne pourquoi pas ñu dajale ay xaalis te ko fii nit ñi soxla soxla luñ fàggani ko soxla luñ dundee soxla luñ protégé wa ñu teg xaalis bi ko seetaan ñu ne déedéet jëloon nañ fukki million ci phase bu njëkk bi jënd ci ay matériel pour fàggani ko bu demee ni kay eau de javel demeet euh, yoo xam ne ci wàllu fàgganiku ay masque ay ay nu mu tuddati gel ay gel waaye itam yére yi nga xam ne moom la médecin di sol seen blouse yooyu noonu forme unique yooyu jënd nañ ko jox leen ko ci centre yi nga xam ne fa la ñu defee traitement yi lépp pour participer ndax Mawlana Cheikh Jalaanu euh, xolam noonu la yaata woon bëgg-bëggam ci doomu aadama noonu la yaata woon euh, beneen euh, trent millions 35 millions yi jënd ko dund gis ngeen niñ ko séddalee daanaka dajut waaye yaatu na lool mun nañu wax ne fi mu fi mu egg beneen fukki million bi nag président toog laaj ndimbal pour jëriñ askanam xettali leen ñu jël fukki million joxe ko ci turi xalifa bi ci bi muy ci force covid 19 ba léegi nag ci activité yi ñu gis ne jumaa ji ubbiwaat na parce que jumaa ji indi woon nañ ci ay savon liquide indi woon nañ ci ay gel antiseptique indi woon nañ ci ay maxal waaye comme laaj na mesures yi ñu mun koo respecté comme ni ko ministre bu diglee suñ kilifa yi feddali ko ñu ne ren tey nag fond bi ne nañ defaare bu mille masques ko fii képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci jumaa ji boo amul masque ñu jox la ko nga jël ko pour ñu mottali les mesures barrières loolu daal mooy activité yi nga xam ne fond bi mu ngi ci ay projet bëri na projet 2020 bu ci nekkoon mooy maad bi gis ngeen liggéey bi mu sore daanaka R plus 1 bi rasé na ba ñu ngi ko war a pouler pour def R plus euh, bi nga xam ne itam ñu ngi ko doon liggéey xalifa bi téye na ko ci loxoom waaye tam nee na moom jël na ko tegaal ko ci loxo fond bi ñu eggali liggéey bi te liggéey baa ngi dox ay itam benn yoon ñu ngi omb ak taalibe yi yëpp daal nañ góorgóorlu ci participer ci fond bi nga xam ne képp koo xam ne sa dërëm dugg na ci te dërëm dana dem ci lépp lu yëngatu ci xadra bi ndax incha allah bu ñu yàlla may liñ bëgg mbooleem projet xadra bi ñaari événement yi gën a mag ci xadra bi muy gàmmu Medina gàmmu Tayba gàmmu jëppal bu ko leen lépp incha allah fond bi moo koy financé moo koy def kon lépp ci def sa dërëm rek jàppal ne fépp lu ñuy liggéey ci xadra bi sa xaalis dana fi yem macha allah loolu loolu loolu xewal bu yaatu la euh, ñu leen di oo ci participation yi euh, am na ay compte euh, banque am nañ UBA am nañ BIS BIS banque islamique du Sénégal am nañ BOA Bank of Africa waaye itam am nañ code marchand 24 04 84 mu Orange Money am nañ tam euh, numéro Orange Money 481 04 04 képp koo xam ne bo ngaa participer rek boo ci jaaree sa participation dana egg ci euh, liggéeyu xadra bi. fàttali numéro bi 77 wala 78. 77 481 04 Euh, code marchand bi mooy 24 04 84 mooy code marchand bi nga xam ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a dugal te doo dugal frais moom boo dugalee rek incha allah dana yegg si ci fond bi dana jëm ci liggéey bi jëm ci xadra bi. macha ñu dellu ci om boole mbokk taalibe yi di gërëm itam euh, mbokk yi nga xam ne waxtu bu nekk partenaires yi euh, fond Medina Baye demee ni kii Kossy TV yi nga xam ne waxtu bu nekk ñu ngi ci suñu wet di ànd ak ñun Barham Universel Multimédia mi ngi nii ànd ak ñun ak Malben. ak euh, Alfayda Mbaye FM télé euh, médiaw xadra bi daal ci gàttal nga xam ne lépp loo xam ne fond bi ñu ci ñoom ñu ci ànd ak ñoom xaaruñ ci ku leen ci oo léegi ñi rek ñi ngi naqarlu lu tax ñuy def masque yi te ooruñu ooruñu leen ñu médiatiser ko waaye daf fekkoon ne liñ ko indi woon yëpp ne waaye lu baax jarte xeet te siiwal ko dara nekk ci moo tax mu def euh, interview bi ñu leen ñaanal ñaan yàlla seen média yi mu daj àddina yëpp raw seen yortu ngeen jëriñ ci jëriñ ci seen askan jëriñ ci seen xadra jëriñ ci mboolem doomi aadama yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu